ko te ñii di siisu bay leen ko jàmm waay ana ñuy wax borom Gàmbi waay bokk iblisu di def ak ñii di siisu yow santa got ba ñuy yegg si fii nii ñëpp a taxaw teeru santa got ba ñuy taxaw fii nii ñëpp a taxaw teeru rene suñu maay yow santaat got ba ñuy yegg si fii nii ñëpp a taxaw teeru ji ci sa bopp nga koy gis ci sa maan nga koy dégg yenn saay life bi diis mais da ngay gis ay nit ñu la dina tar ba nga jekk saa yenn saay nga bëgg a xàddi mais boo gisee ñu la bëgg da ngay xam ni ni waroo bàyyi da liggéey job liggéey traay liggéey pour sa mbokk da ngay liggéey job liggéey traay liggéey ndax fu nga bokk géeje waay di la gëm maa ma sa bàyyi géeje waay def la gëm sii di bul ma sa ba ngay door soor bëggee bi di gën a di tactique ba léegi di lépp nekk sa boor ngay jug di dem woote mbàgg waay fa laaj ko fees boo wootee géeje waay yi boo maa ngi gis ñëpp feer fu nekk nii ndaw yu jógee bul ma sax xàtte bul bàyyi ma dama lay bëggee moom mu ngi liir malheureusement ndax géej waay la ñu juddoo jéem foofu la ñu manqué gàtt ak ay dëgg bokk iblis ak ay dëgg lu waaj def foog ñii di bëgg ñii di siis loolu ak ay dëgg siin koo Eh, fi lu waay di def foog i di bëgg ñi di siisu noonu la laaj bi waaye football la lak di siisu yoon bi dafa métti lool tey bëri xaaxam di nga dem di nga bari lu ne waaye bëri xam-xam ndax fii boo yàggee fit wallaahi doo fa egg amal fit tak seen digg fu nekk mën nga fa egg suba dafa bëri ay yoon ay yoon yoon te bul ci tàyyi da ngay gëm li nga gëm dem ba sooy ci nga

Sidy mënoo def li may def. loo def ma def ko ndiga. li may def. loo teg ma teg ko ndiga. oh Ngaaka moo ngi nii taxaw seet yor benn casquette cristal may teg ri mi ngay gis ni mu génn mel ni ndoket koket mel ni ku yor góor di ko ci raket casquette ci pet Ngaaka bee def fu nekk la koy teg mënoo def li may def. loo def ma def ko ndiga. Sidy def li may def. loo def ma def ko ndiga. ok eh maa ngi nii jàkkaarloog benn waay bu yor benn caméra Sidi Diop ci kaw seen man maa ci raw aari camara Sidi benn boy bu saf saf la toog ko di safara lool def ma def ko ndigal ay bro def li may def lool def ma def ko ndigal Sidi mu doon def li may def wallahi lool def ma def ko ndigal eh mu doon def li may def non lool def ma def ko ndigal eh mu doon def li may def loo def ma maa ngi gis ni benn gaay taxaw woowee ko këccëb gaakab leen na di teg ribi gën a graaw fu nekk may tëb maa ngi ni di dem mu yor ni benn kasket lan bu xonk gaakab leen na di teg mel ni kuy dem duus jokkoon ba xonk loo def ma def ko ndigal si di munoo def li may def loo def ma def ko ndigal eh, li may def loo def ma def ko ndigal si di munoo def li may ah def waajit nii waajit taxaw jox ma benn mouchoir ba ma eggee kër max la ma ne sa répertoire maa ngi am ci sama bi ma bala maa jéem a ak sama mémoire mënoo def li may def loo def demi def ko dëgg demi, universitaire may mel ni élève buy am ay bac rime di tag maa koy gën a gaaw mu mel ni ku nekk tic tac ngaa ko benn flow di gën a rap booy fu nekk laa koy teg di rap def ko ci rek teg ngaa ko benn booy mel ni dama ko teg ba bi bonne couleur la bonne couleur bonne couleur ey boy yi dama blanc ngaa ko benn ci rap wallaay xam ngeen ni man dama am talent dama galant flan fu nekk laay def booy yee ma fan ngaa ko benn pourtant nam temps dafa nekk dama koy teg si temps mënoo def damay def. wallaay loo def ma def ko dégg. est-ce que mën nga def damay def. loo def ma def ko dégg. si ñu mënoo def li may def. ak lan ak Lima gaa ngi nii waaji taxaw ne ma fii di waxal ma ci nafa man fii di jóg li may def li ñu impro dama koy nafa man fii di li may def maa ngi gën a garaaw nag taf tafa xolal li may def dafa garaaw ni benn booy taf tafa ci ndigal bu ma jàpp ci kaw seen man fii di duma taf tafa maa ngi nii di jàkkaarloo gaa yi booy damay taf tafa li may def nii dafa gaaw yéexul looy taf tafa loo def ma def ko ndigal loo def ma def ko ndigal li nekk ci réew dañu ko def li nekk ci réew mi dafa tëf li nekk ci réew mi dafa tëf dëkk ci réew mi dafa tëf li nekk ci جريت الحياة في نفس الريوة دم جور bég na sigilaat nga Sénégal sigilaat nga Afrique sigilaat nga Géejawaay je suis fier de toi li ma la waxoon démb Sidi loo nekk maa ngi ci loo bokk maa ci biir bul tiit bul ragal du Géejawaay nga bandi all instant rek ma gën a xam. man xaw ma ci kaw lañ jugee man dama jéggi saay rek gis leen ba pare foo tourné Dakar instant nga gis. mais loolu ëpp na Dakar instant ca kaw ca kanam rek. waaw ah, Dakar instant daal gis naa seen caméra bi ni mu xam naa ne bëri na doole trop ba mënuma xool bu baax damay pis pis di pàcc pàccal nii. waaw Dakar instant maa ngi leen dama leen di suivre si page seen page YouTube daal. waa Dakar instant moom boo xoolee ñoom seen tour rek. day chaque instant c'est le bonheur. monsieur le maire loo wax ci Dakar instant. Wow, c'est une première mais ni ma Dakar instant dafay prouver ne Dakar instant ci kanam la jëm inshallah. Gagne une ñu ngi koy suivre Dakar instant L'année leen laay wax na gars dem abonné loolu bëgg si actualité ñëw leen si Dakar instant. sa liggéey rafet na trop macha allah. Mbacke loo wax ci Dakar instant. Wow, Dakar instant nag moom ñoom dañoo xew. ndax bañ naa ko chaque jour ma xëy information yi may soxla yëpp ñoo ma koy jox muy dugg ci YouTube bi da ko xool rek. looy wax ci Dakar instant. na fi comme ci Dakar instant. Dakar instant yéen boo yeewoo moom laay seetaan.